mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24 point net am mbégte am contentement bu baax a baax a baax di jàkkaarloowaat ak yéen fii ci biir Sunugal 24 point net ci émission bu mag bi di làmb la comme ni ñu koy defee à chaque fois heure bu ñu xëyee rek di xool li gën a fës ci làmb rek ñu teg ko fii waxtaanee ko bu baax a baax a baax tey ki nu dalal doonatul ku ñuy présenté ci réew mi ak ndaanaanam it yaakaar naa ne kenn dootu koy rente ci réew mi c'est le grand champion ñu fas yéene waxtaan ak moom tolluwaayam ci wàllu làmb du mën a ñàkk. actuellement ñi nga xamante làmb di déroulé di mën a ñàkk ñu waxtaan ci bu baax a baax a baax avant tout dama koy bàyyi rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24 point net Moussa Ndoye ñu ngi lay siyaare. waaw maa ngi ziar maa leen di bu baax a baax a baax di am kontaan di Sénégal Sunugal 24. Mm-hmm. di leen nuyu bu baax a baax a baax jaw maa ngi lay bu baax di doyen di nuyu àdduna di nuyu àdduna bu baax a baax di ñaanal kilifa diine yàlla na yàlla na yàlla guddal seen fan. ñu dem barsàq yal na yàlla yërëm leen te yéexuñu di ñaanal sama waajur bu góor yal na ko yàlla yërëm te xëy ko aljanna ak bépp waajur bu dem di ñaanal Sénégal tamit yal na fi jàmm yàgg mbas mi nekk fi muy coronavirus yal na ko yàlla jële jële si àdduna bi gas bi mu xóot suul ko foofu ak euh, fépp fu mu nekk rek di ñaanal ñi nga xam ñoo nekk si Europe bi ñu nekk ñu nekk si bitim réew yëpp yal na yàlla jàppal leen fa nekk mbas mi yal na fa jóge ba suñu doom suñu doomi réew yi nekk foofu mën a ut lu ñuy joxe seen waajur nekk fi du nuyu axul làmb nag du nii ki nga xam ne moo fi nekk mu euh, ministre des sports Matar Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax du nuyu ki nga xam ne mooy président président CNG bu bees bi Birane Sène bu baax di ko wax soyale bienvenue na dal ak jàmm fekk fi jàmm tamit yàlla na yéex buy dem bay bàyyi ndombal tànk di jox keneen tamit na fi bàyyi jàmm rek di nuyu làmb nag ñëpp làmb la yëpp maa ngi nuyu ñëpp général les waaw nuyu ñëpp Euh, comme Jean Ndoye waxee rek mbas mi ci réew mi du mën a ñàkk hmm? nañuy sàmmante ni moom la ñu waa kër docteur sant nañu raxasu ba set gel antiseptique bu ñu moo gën masque nag yaakaar naa ne moom c'est une obligation ku ko ci deful rek yat bi mën na laa dal bu baax a baax ñu dugg nag ci émission bu mag bi di làmbaloo ci tënk rek boo ñëwoon tey su ma ne la woon Moussa Ndoye lan nga may wax kan mooy Moussa Ndoye loo may wax. waaw Moussa Ndoye mi ngi nii l'enfant de Yarax dëkk bi Yarax yaroo bi Yarax juddoo fa tamit. nekk xale bu ndaw waa école de l' Hadj Abdoulaye Diène yar ma si pépinière ba ni ma màggee ma nekk ak ñoom dund ak ñoom def ak doom ak ñoom lépp ba fii. ma cité mu mel ni ku mel ni sunu bàyyi Gouda Sarr Aliou Sarr Mamadou Sow Souleymane Diaw nuyu suma rakk mbër yi nga xam ñoo nekk sama ginnaaw ku su ma ñu loo sodd booy yaraax booy naar caatu yaraax was jàmbaar. ñun ñëpp Nokia Kaw 2 mi ngi fi trop sa xorom <laughs> ñoom Kaw 2 di ko ñaanal Kaw 2 euh, tournoi bi mu dugg yàlla jël pay te ñu ngi koy jàppale pour mu jël pay mm-hmm. te dinañ ci jàpp ñun ñëpp nag mm-hmm. waaw dinañ ci jàpp ñëpp Dalifort ak Yarax benn la ñuy caatu Yarax tamit euh, di ko félicité di ko wax ni ko vraiment euh, félicitation parce que da doon jël soxna di ko félicité bu baax a baax baax di ko wax ni combat bi mu dugg tamit yàlla na ko ci yàlla may ndam waaw moom Zal Bawol yàlla na ko yàlla may ndam ñun yaraax lañ dëkk te ñun on est fiers d'être yaraaxuwaa parce que dama koy wax chaque jour que jëfee bu ñu gisee doomu yaraax jóg ci dara rek dañ ciy dañ ciy jàpp. parce que man bi muy jóg dañ ma doon jàpp kon ñoom bu ñu jógee dama si jàpp. di nuyu yaraax bu baax a baax a baax a baax di nuyu bu baax a baax yaa yaraax Serigne Diour maa ngi koy bu baax a baax tamit di nuyu tax fi ngeen ma fekk. waaw muy suma xarit suma zoo technique suma xarit suma lépp ku baax tamit parce que rendez-vous laa fi am rek bi mu fi ñëwee ngi noonu ngeen woo ma leen bu leen neexee parce que man fu ma nekk rek mën naa fa def émission waaw aw ma xaar xaar ma yàlla kenn fu ma nekk mën naa fa def émission kon daal ñu xoo ñu xuus rek. wallaay ci lamb ci lamb wallaay wallaay saison ren tey boo amoon bilan bu la. bi. est-ce que mos ngaa dund saison bu mel nii. déedéet déedéet saison mosuma dund lu sax si làmb waaw parce que métti na waxtuma ak ñu gën a si ñoom nag mooy njël ans jàmbur man ñooñu laa gën am tuuti yërmande si ñoom. parce que tey xoolal imaginel nga jël ans mu bëgg a def si yow at. fan nga jëm. nga ñaan lu ji dem fu ne yaag say mbokk jóg waaj laa ma ñu ne kamaj léegi yow boo amul xel rek da nga caali mais nag ah yéen ñi nga xam ñoom ñoo yor mbëri nañ comprendre mbëri ñu dimbali leen dafa ànd ak ndimbal dafa ànd ak ndimbal képp kuy ànd ak mbër nga dimbali mbër yi ñi nga xam ne dañoo yor avance su jàmbur day jeex na sago fi nekk jeex na ñu jël 100 millions sax jeex na ku jël 100 millions sax jeex na dañuy sago waaw sago fi nekk rek ak sutura mais nag yal na yàlla teggi lépp xëy na bu yàlla defee yàlla mun na ko te bu ko defee du ko wàññi dara mën na jël mbas mi si benn seconde taxañ ko sànni fële te yàlla ñu ko yàlla defal si barke yonent bi barke mag ñu baax ñi ñu wax nag ni làmb moom ah ñu ngi ñu ngi off fight ci guddi ñu toll nii ndax euh, kenn bëriwul activité la ma dakk na yëpp parce que ñu ngi tere rassemblement dalul xel dalul xel dalul dalagul xel fi mu jëm baaxul ah yàlla mu hmm. jógee yaraax mu hmm. sa diggante ak waa bi la. biir yaraax non non sens ma ko sax jéem ma ko ku may utal noonu biir yaraax ma bañ aw ko aw fa noonu. ñi tax ñëpp ñi ñëkk ñoo mat papa samay papa lañ ñoo mat yaay samay yaay lañ ñoo mat maam samay maam lañ ñoo mat rakk samay rakk lañ ñoo mat mag samay mag man loolu laa dund anyway mooy li muy wax ah duñ dégg li Moussa Ndoye wax lii de ñu mu ñaaw duñ ko dégg mooy olof Ndiaye li mu wax baatu ginnaaw nag kenn mënu ko bañ xëy na nit mën na romb Moussa Ndoye mën na ko bañ a neex mu wax na nga xam ni Moussa Ndoye waxewu ko wala Moussa Ndoye doxewu ko jëfewu ko mais loolu tamit mooy la amaguñ ko biir yarax fuñ dox buñ ñu gisee dañuy kaf dañuy ree dañuy dugg ak ñoom si lu baax di wax ak ñoom si lu baax lu ñu mën a dem mu fekk ñu fa bii yarax muy programme bu mën a amee rax dañuy dem muy daj muy ngénte muy takk man bañu ma ba ku ma invité fuural sabat ku ma invité ma ñëw tojal la ko dem toogaat sama kër man loolu ma yàlla di xewul ma kenn bésam ndax su ma xewlee képp am ñaa xam ni dix heures day fekk ñu teg seen añ seen waa kër lekk ko ndax boo dafa foo génn Moussa Ndoye da lay da koy bëgg. ak 10 heures Moussa Ndoye ak 11 bi benn une heure temps dañ naan diggante 10 heures 11 heures Moussa Ndoye loolu ku koy raté rek moo moo dàq sax la am ndax Moussa Ndoye bu génn ci buntu këram noonu def benn chorégraphie am yëngal dem géej ñëwaat doo ko gisaat boo gisaatee rek day génn dem stade buy génn dem stade nag mag yi maire yi paa yi xale yu ndaw yi ñëpp ñaan di jooy loolu kon aw droit di. wax di di di naan sax damay dem fii wala damay dem fee yaraax ba ba ba àdduna dukki. lan nga wax ñi nga xamante ni toujours musaa Ndoye lañ bëgg Moussa Ndoye bu dàq. waaw loolu maanaam loolu lañ ñooñu ñooñu nag gis nga gis nga tous tous seen nopp dafa dafa bokk ci làmb moo tax ñun dañ ñu koy jàngal jàngal mooy da ngay taxaw dañ ne la booy tuus li ngay tuus teg ko ci temps. te da nga dégg ko nga dégg amul dégg-dégg te nag xam nga dañ ñu Moussa Ndoye néew ñu ñëwaat benn dégg-dégg la ñuy gisaat ci Moussa Ndoye si pecc meeg bëri bi yokkat nañ yeneen ak yeneen parce que Moussa Ndoye dafa jóg yaraax téye ko samay mbokk ñëw waxtaan ceeg waa yaraax dolle gën a ko si man samay mbokk dañoo ñëwoon mais dégg ma la ñun ñëpp dañoo bàyyi seen yitte tund lébu yëpp ni ma yaa fi ne nañ la jàppale jàppale seen rakk képp ñoom ñëpp préparé nañ pour leneen bu amaatee ñu xool neen lañ koy defee moo tax ma ne kon Moussa Ndoye bu ñëwaat ci làmb damay ragal mbër mi muy bëril am problème mu fu ay supporter am ci toog lam lan nga wax ñi nga xamante ni dañ naan Moussa Ndoye du ci maanaam cër bi mu war a jox adversaire am dëgg ko jox. waaw loolu. bu fekkee man waaw football de jeunesse day am parce que euh, man mooy li ma wax hmm. xale la hmm. teel a bëri moo ñu jàpp rek mais wallahi azim ay xale yu ndaw lañ mais loolu dama siy jéggulu amaana dootuñu dara ci parce que mooy la loolu mënul ñàkk football de jeunesse mënul ñàkk ci góor ak góor parce que tey jii mooy li ma wax man sama papa maa wax ne Moussa góor nga bu nit da koy jox la da jox xale nga mënu man bu nit da jox la nga téye bu day danka joxaat la di danka di la jox déedéet bu dankay jox la nga lekk dankal jox ko mu lekk parce que loolu lañ de mais nag taxul defar nañ lu bare bare bari ci loolu hmm. parce que dama ne nit dina jóge si dara ñànk am ci ñàngat nit dina jóge si dara ñàkk si am ñàngat ba faw ñu jóge si dara am si ñàngat goo nga xam ni jërëjëf waay man dama naan jërëjëf jërëjëf jërëjëf waay yaraax wallaay yàlla mi jërëjëf waay yaraax te surtout ki nga xam ni bu lu mu metti metti metti metti day ne sama wet muy Ngouda Sarr ak Pape Sini. waaw lu mu métti métti métti métti ak lu déport déportage mën a am su ma gesoo Ngouda Sarr Pape Sini laay seen dañ may conseillé defal nii defal nii defal nii tey nit dina daanu caalit mais est-ce que mos nañ gis Moussa Ndoye nit daanu man Moussa Ndoye daanu bopp naan bàyyi naa la am non non. dama naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax dama naan daan ay doomu jàmbur ñu ñibbi di jooy. comme aw ma droit di daanu kon ñàkk gëm yàlla day dugg foofu non ma dama gëm li ma doon gëm yàlla te ba pare nag wóolu ko xam ni dina gëm yàlla te du mais dama gëm yàlla wóolu ko ni yàlla li ma desel li ma li ma dencal moo dàq ci kon tey man li wax rek samay njaboot jóg su ma famille jóg nañ su may rakk su may su may am di jàmm yëpp jóg nañ pour Moussa Ndoye kon man aw ma droit di def benn erreur pour kii mooy nekk suma bopp nekk si liñ nekk ba bi yàlla dindi lii làmb nekkat waaw man dama maa ngi wax ba gi dama nekk entraînement ma neen ku mu tëggaloo benn combat 15 jours du ma ko jël. nii que maa ngi ci li mu war a nekk. wallaay azim du ma du ma du man du ma ñooñ man lu ma nekk nekk naa si waaw man je suis comme ça man noonu laay baax na li si kanam raw li yaa ngi gëj a wàcc sa diggante ak Garga Mbossé Pape Abdou moo ko tëggoon. PDG Paf Production. làmb jooju sax xam nga loolu ko sa. respecté wu ma ko nangu naa ko mooy dama ne man maay mbër mi sël mbër maa nga xam ne nangu naa déglu conseil nangu nangu naa déglu critique man damay bëre pare toog ñu critique ma ma daan ñàkk daan ñu critique ma ma paree ñu critique ma naan maa ko def maa ngi jégalu ñu ma wax jeexal. saa yi mbooloo bi topp sa ginnaaw. waaw jot na. jot na ñu calculer. mbooloo mi ci gën waaw moomatul Moussa Ndoye moomatul boppam mooy li may wax. xam nga nga daanu nga daanu ba nga ñëw si dëkk bi dañu leen tey li wax lañ ma doon woyal li yëngaluñu kon tey comme yëngalu leen dañuy jàpp te tawu bàyyi kon man lépp lu ma amati ñoom dinañ xam ne sóoraale naa leen dinañ ko gis si man léegi nag mooy li olof Njaay di wax dinañ ne danga jël combat ndox du bàyyi yoonam nag bu ñu ba dugg ci géej bi moom wax dëgg yàlla salañ salañ yeeg affaire ak yooyu moom mënu ma ko bàyyi parce que tey jii am na yoo xam boo ko bàyyi la ñuy wax am na lu ñuy tiit ci làmb léegi non làmb su ma si dalee tiit dara damay sama mënit bu at bi ne prix def waaw waaw damay dem mais nag lu bëree bëri bëri bëri bëri dina wàññeeku wàññeeku du bàyyi day wàññeeku mooy boo ñëwee wan ad wan adversaire bi ni ko tey lii ak dinaa la wan la contrat lañ nekk dina neex dinaa la feccal dina yëngal stade bi. dina ambiance bu ñu duggee ci góor yi bu arbitre prip. ma wane jom ak fulla ak fayda. mais takk fu wóor nag. ñu bëri ne maanaam Moussa Ndoye làmb bu bu amuloon xeex yow doo bëri ñu bëri ne yow xeex lañ def. pourtant billahi bëri laa gën li ma mën ci bëre bëreegu ma ko ci làmb ji tey bu bettoon ay nit yu bëri laaj leen kan mooy Moussa Ndoye ci bëre. Mhm. kon est-ce que nekkul adversaire yi ngay dajal moom moo laajul bëre xeex la laaj. waaw adversaire bu ne ak li mu laaj tey bu ma ñëwoon dafa benn adversaire ma xam day bëre ma bëre ak moom man do man du ma la may te damay damay gis la nga xam ne danga ma ko jël fa force si bëri waxuma xeex nag. bu dinoon xeex wax naa ko nee naa poids lourd yu bari fii wala yeneen mbëru mag yi tax ñi ñuy wax ni suñ dinoon xeex ba sa bu dootuñu bëri te man buñ dinoon xeex sa làmb xamante ne bëgg naa nag nga décortiquer mi yaa maanaam nga décortiquer ma ko. combat boobu pratiquement moom moo gën a marqué sa carrière. Mm-hmm. muy sa diggante ak boobu dafa bëri lu si ëmb woon Modou Anta ñu ko jël gars yi dama xamoon ndax xam nga Modou Anta ma ne na xaw ma ko ñun mosul daa am ma ne ah kon kooku mbër la. te ba champion bu mag la ndax bu bëree yenn at yi rek am yenn victoire yi. waaw dëkk. ñu wax ko ak Thiès mu toll. macha allah ci ginnaaw mu indi fi ay biche dafa indi station bi station fa dal. ñoon xale bi dawee jaayu noonu ñoon ak xëy ku mu mën takk si ay gàllaaj lu bëri naanaan mais ma xam ne ndaanaan doonaa ni moo toog baran ko toog noonu rek di xool ma ni tekk di ko déglu xam nga dafa am la xam ne mooy li wax sama sama jaamu yaram li koy yëngal soo ko waxee ci presse bi gars yi def la ko mais mu daata da ko daf ma ko yëngalal ci biir géew bi nan dafa am lu mu wax si biir géew bi baat boobu waaw bi ma yëngalee ma ne gees li sama entraîneur mun naa moo ko tegal foofu bank balankaar dee rek moo tax ma dugg foofu mu ma lan ma ne kon kenn mënu ci dara kii bu arbitre sifflé ma àndal lu mu bëgg dara ma si ànd moom mais mu nekk mbëri bërikat bi mu dawee teg ndaanaan ba billaahi walaay léeg ma dóor ko nag sànni koy xeer mais ndaanaan la bi mu dawee teg tànk ma teg tànk ñu léewtoo ma xool ko ma gis nii li dafa roy ci Modou Lo mu ëpp te ma maîtriser ma am maîtrise nag ci côté boobu bu dawee bu defee yëngale yaram yaakaar day ñëw du ñëwul dafa taxaw fu mu taxaw boo dawee ñëw rek mu defal li mu bëgg a def. dama koy jàng di ko liir mu daw bëre bi ñu dawee xeex ma ak moom ma def changement de pied boo déggee sama père bi paa bi sant te mi ngi wax naan. Pàcceer maa ngi koy nuyu passage. mi ngi naan xoolal ña xoolal dal ma gis si Moussa Ndoye di ko wax Bécaye naan ka Bécaye dama gis Moussa Ndoye. li ko jaaxal mooy moom yow dal gi nga. waaw Moussa Ndoye dafa dal tey. na moytu Moussa Ndoye saay saay la sama papa Mbassi Mbargane nankaan bukki la. Moussa. soo ko dàqee guddi. boo billaay boo ko dàqee rek gis musiba fi ñuy waxee rek booy bi ni bërët ak ma daw deux pas trois pas daw ni ko katam bi mu ko dee katam ne ko fi ma taxaw ngay ñëw. fi mu taxaw laa taxaw ma moom ma tegal ma toogloo ko fi ma taxawoon man. parce que changement bi ma def ak dama ne ko daw taral ni ko kaay fii nga tëdd man ma taxaw. bi mu jógee noonu ni ko champion la dama dama ñëw si moom ni ko champion la ndaanaan moo la daan na xamoo ma mu nekk première défaite am moo tax mu métti parce que première défaite day mel ni la day diis mais bërikat la waaw bërikat la daanaanu bërikat la hmm, loolu moom am na. yow maanaam tey bëre bi da nga ko wala wala dafa su ma bëriwul dañ ma war a laaj dañ ma war <laughs> waaw parce que nekkuma nekkuma màgg bëre loolu dama koy wax nekkuma màgg bëre. tooguma toog ñii ñu ne kaay nga bëri ma ko man bi may bëri sama yaay bëgguloon ma bëri man léeg-léeg ñu ni ma man la sama maam bëri bañ may ko fas naaru góor bu weex loolu dañ ma koy tàggee tey bu sama bàjjen taxoon fii da koy wax fukki bénceen ñaari dama ci bokk tey saw fay yarax dëkk bàyyi du saw yarax dëkk bàyyi Ablaye Diène yarax dëkk bàyyi Mbaye Sarr yarax dëkk bàcc Mbaye yarax dëkk boo yarax bu mag kàdd gi yaraax kon tey ñoom ñëpp bu ñu doon ay mbër Moussa Ndoye judd ci dëkk sama baay nag bëriwul dóor daan na fo fowantu waaw ba sama nijaay nekk ñoom bàyyi sama nijaay Ibi Diop ñoom bàyyi Pape Sène Gueye ñoom ñëpp ay jën yusu ñooñu foo yusu jën ñooñu ñoo bokk benn turandoo bi la tey ñooñu bu fekkee ni yàlla dafa def ñooñu ñëpp ne man boo juddoo ci ci ëtt boobu kon ëtt boobu ku fa juddoo lan nga war a doon moo tax bi ma ñëwee di doon bër sama yaay dafa bañ ñu ma dóori moom laa siy tuuti sama papa ne ko kii bàyyi ko mu def su duggee ci leneen sama doom bu doon dem defi leneen war nga mën a tiit mais dafa dem di defi la nga xam ne góor a koy def bàyyi ko mu dem ma am si ma am si ñaan nag ñu d' accord su ma yaay d' accord ma dem mbapat musu dégg dégg ma dégg boog mbapat am na yarax. waaw yaakaar naa waaye maa ngi ñëw ci mbapat. waaw pour su ma fa duggee mbapat moom duggee musuma rappelé wu rappelé wu sama carrière ba nii fi ma toog yow dugg naa si ba pare yaraax ñu ja nga gis ko gàddu drapeau wala saako ceeb wala nag wala xaalis ci dem. am na benn dëkk bu ñuy wax euh, Toubacouta Bani. Toubacouta. 11 ans làmb ji musul génn mbër mun a dem na fa nag. mbër yu bari ñu ngi leen siiw fii ñu ngi wax nii nii dem nañ fa ci mbëru Dakar yi 11 ans làmb ji musul génn dëkk mbëru dëkk ba moo koy jël bi ma ñëwee si 12e dama ko jël man. déedéet ci bëre jël bu ne bokkul ak jël bi ma daan mbëru dëkk bi laa finaaloon tournoi la mbapat bëri ko jot bëri doo xam ki ngi bëri sax ma jël li may wax nii loo sóodu loo sóodu xam na li may wax parce que seen dem naa fa ñu àndoon bi ma demee ma jël ko dëkk bi dañoo kontaan ba dañoo xëy may ma fet moom noonu laa xam ni loolu fooy nañ ko parce que dem naa fi Fatick bëri ji damaa fi Toubacouta bëri ji fi moom petit code bi moom dama ay lambo dama lambo damaa dem ba tas. petit code bi fii dama li ko def campement dugg soman jaar noonu Mbour dugg ci yeneen petit code. dama bëree euh, dolfu dimanche dimanche bi si bi si ma def presque un mois si àll bi sama yaay dafa dem ba ne ma ndax gis nga li ñuy nurul nuutul nit yaa ngi ñun kuk. salte sa bopp bi xoolal ni ñu nga nga defar toog si savouré sax sa victoire nga toppaat si àll bi nii man ko damay jàngi rek. topp xool jàng jàng jàng jàng ba làmba néew ma nit du si def lu ma jaaxal parce que làmba dafa bëri ay page mais bariwul jàng nañ ko tarbiye nañ ko parce que mu suñu écrit da ngay daan ba pare ni nga daanee baaxul sax ñu taaj la ne ni nga daanee baaxul naa ko mooy victoire. ci maanaam a ci làmb làmb billaahi da ngay daan. mën nga daan. mun na ni nga daan ci daan ci erreur ñun la ni nga bëree baaxul. bu lee beneen lamboot bu la dalee mën nga ci am mën nga ci ñàkk. waaw loolu moo tax ñun suñu groupe suñu équipe loolu lañ ci sant yàlla. parce que dañ lay rectifier dafa am rectification bi dafa bari foofu. moo tax saa su ne yombul ñu juum daal waaw yombul ñu juum loolu loolu ñoom ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax surtout man dama leen ciy gërëm. mystique gëm nga ko ci làmb. 70 pour cent la. 7 pour cent 7 pour cent si la am xam nga làmb 100 pour cent la. Hmm. mystique 7 pour cent la. Ah, boo entraîné boo entraîné gëm sa bopp mën li ngay def mystique ñëw motalu si lu des gis nga dafa ñëw quatrième. ok su ma la euh, rek parce que dig làmb ñaan gi pour dangay doomu aadama lañ dangay simmeeku. desal lépp feeñ nga musulaayu ñaan bayre mënul ñàkk. tey kuy xëy di dem di def bon si këram sax day ut bayre pour yeneen kër yi gën a riche gën ko gis bu mën ko woo mu ñëw kon ñun loolu lañ ci jublu waaw mais nag ñaan am na ñaan am ci la bokk mais ah man de bëgguma mooy priorité bi bëgguma ko si basé wu en cent pour cent boo si basé wu en cent pour cent dem toog fële ni ah, waaw gàllaaj gàllaaj kon sëriñ si ngem seen doom ñëw kon sëriñ si di ñaan nii pour nga dal kon dañ naan seen doom toogal fii ñu lijjanti la combat 100 millions nga am 100 millions ñu jox la galaaj ñoo demal daan ko ñëwaat. daa dugg ci làmb santé na tey moom atteindre mais dama ko mënul sant man boog ko mënul sentir xam nga Moussa Ndoye bu ñu tegee sama combat yëpp Moussa Ndoye day fecc di fecc di bëre di fecc di bëre daanu daanu. waaw man damay fecc di bëre di fecc di di bëre. ba ci géew ba daanu mbaa ma daanu. bu ma ñibbisee ñu naan man naan non tey moom li nga daan def defoo ko ma ne pourtant sentir ma sax ni def naa li def mu leen mais nag man sama daanu dama koy xamee ci sama ci ci ci samay ci samay butéel laay xamee samay daanu su ma ñëwee samay ba war nekk ci géew bi mën na juum yi bu bëree rek ma ne baax juum yi na bëri léeg-léeg nga jël butéel ba xam waroo ko jëlee foofu nga jël ko fa ma laajtee ñu ma noo jëloo ko sànq ma ne tey xëy na jaxase nañ Moussa Ndoye ci xelam ma sentir sama tànkaa ngi metti wala sama siti doxul wala sama yaram sama loxo jugul non non musuma ko musuma ko sentir moom sama lépp doon fonctionné moom waaye. maanaam sa combat ak maanaam Lac Rose. gis nañ xam nga nga ñëw indi maanaam benn détermination boo xamante ni dafa jaaxaloon ñu bari. Mm-hmm. wala da ngaa jàpp ne kii dafa jógee ci blessure faa mu humilier ko wala lan nga bëree jour boobu. non comment. nga ñëw tegal ko lu xotteeku lu kenn mun dindi. combat boobu deret moo deret deret a yëngu rek ndax wax dëgg yàlla. département bu taxaw la ñu jël ñu jël ko ci ci seen jël ko ci si ci ci dëggu moom mu nekk jàmbaar te ku mu nekk jàmbaar foofu nga jàmbaare. waaw. mën a bëre doon jàmbaar te ragal. équipe bu mag. nekk équipe bu mag mais nag mosuma fàttaliku fu mbëru fas daanee mbëru yarax. Ah, histoire laa lay wax bi nag. xam ah. nga ah, boo waxee loolu ñu ba dañ koy jàppee dër bi la. waa di man yooyu du man du ma mbër yooyu di déréglanté te kenn man déréglanté ma kenn mais nag ku mu bëri du ma bëri yow mais Fass mosuma fàttali ko fu ñu daanee mbëru Yaraax man moom ci sama génération ak bi ma juddoo li ma fekkee mosuma bu ma duggee ci làmb ji làmb jooju kàdd gi. gërëm naa Gris Bordeaux commencé. waaw. boo Yaraax man demal ba yow hmm. waaw ñu jël fa drapeau jël fa coupe Souleymane Diaw jël boo yarax jël ñu ñëwaat toog booba ñun bëri ma parce que du bëri. ñoom non non maa ngi ci contrat. waa Fass tey booba euh, Ousmane Toucouleur Socé lii. Socé waaw Socé. nañu ba yarax. booba ñu ma si dëkk xale bu ndaw ñu war a bëri sama nijaay sama nijaay di daan di daan ba day gir ba defe naa ñu ne ju du am. booba sama maam moo ne làmb ju du am boobu bu paa bi te doon supporte face. ok parce que ay Birame Ndiaye yëpp daan na ñëw suma kër maam. ma waxee loolu maa koy ñaanal yàlla na ko yàlla dem sama maam bi ba am saa cumbaat. ñoom Birame daan nañ fi ñëw. mu nekk Birame Ndiaye ku baax. waaw ku baax yàlla na ko yàlla jàppale. xam nga. bi loolu am kàddu gi ne ma Moussa ma naa mu lu musul am bu ñaax mu ma lu musul am yaraax bu ko fi indi. muy lan la mu ma faas musuñu daan yaraax musuñ musuñ yàppuñu yàppuñu ñu li ma la nag waxuma la ko pour ay concurrence ak kenn mais mburu faas waroon la mën a daan guddi ñu toll nii. Ah, loolu ñaax la ma. mënuma sa combat lamaane bu faas bi mu taxawee combat bi des une semaine lay yàqu te yàlla indiwaat na. ñaak Lac Rose te booy lax mën na bëre ragalul am na fit te am na doole ma ne ko d'accord mu mën loolu mu am it uti ko boo doon tolloowee bu ñu dem si géej xam naa am na lu ko ëppale ma ne ko d'accord bi ñu ñëwee arbitre mu ñu déglu ko go benn ñaar ñett réagir mu def benn gauche ma cokkaas cokkaasa ma ma daw tàmpane ko waaw ma maam si kawam ñu du xeex xeex xeex étincelle yi daw mu daw dul ma jël ma ma dóor ko tànk ñu def mu rëpp def trois deux appuis jógaat ñu génn saako yi bi ñu ñëwaatee ma dawat ñu daw bi ñu dawee jàppalante ma koy daw jël te li may wax ni teel laa ko waxee sama combat la grosse bu mu desee trois jours xam nga quatre jours lundi laa entraîné mardi maa ngi hôpital lan da nga doon contact bu tax ñu contact de xool la war noo ko yaa mii tey waaw la doon contact ah, du du contact de. comme ñu box box box da ngay nii. yëngal loxo daw jël. ñu box loolu ba may bàyyi ma daw di ko jël. ma sentir déchirure ma dem hôpital tëdd. gars yi di wax ma ne damay noppal récupération rek bàyyi ma récupérer dina bàyyi bi muy bëre la grosse maa ngi koy sentir moo ko dewee jàpp ba ko ba dugal sama ñaari naax daw di ko force ma sentir ko muy muy metti ma bàyyi. loolu waral ma bàyyi loolu continuer xeex waaw. nga xam ne fii maanaam jàppante. jàppante mën naa jàpp mu sentir ko si man parce que xam naa ko bari kat la bërikat day xool moroom bërikatam bi ma dalee xeex moom mu jël ñeenti coups yoo xam ne mënu ko résister loolu c'est obligatoire. mënu ko résister parce que coups yooyu moom da jël. bi ko jëlee ñu dawaat xeex ba génn mu daw jël na mu dóor ko tànk bi ñu après mu dégg si dañ ko loqi yi man leen waxul làmb la rek mais kuñ loqi sa bët dina xonq wala sa bët dina néew yi wala sa bët dina kii mais nag amul problème làmb la. yàlla ñu joxe ma ndam noonu man tamit ma frisé ko. ma réaction face lu tax ñu ëmb seen mbër yóbbu ko loolu yow jaaxalul la ak maanaam ban réaction. non non ñoom loolu lañ gis parce que mooy war a def te comme mooy kilifa gi Gris Bordeaux ñëw na wax li muy wax jël dëkk nañ ko micro mu ko loxi soose nii da ko loxi wax rek mooy làmb la xeex nañ sentiruma fenn fu baaraam duggee ci bëtam ndax bu baaraam baaraam bu defee nii mën na dam man nag ma ni loolu am problème. jox nañ ma victoire loolu moom fi indiwoon comme jox nañ ma ko nag amul benn problème. mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay